bu ñu baasee bas ñu teew ngir màggal guddi gi ndax lu baax li ci nekk waaye ànd koog njaboot di dalal suñu xel ñu nuyu soxna yi nga xam ne tamit ñëw nañu teel a ànd ak ci liggéey bi kon dañuy jox waa kuréelu mat la bu sifaay

बदा واولنا سعادة تدوم والفضل يا مل ملكه يدوم وصل لي خير صلاة وسلام على الذي ku mel ni sëñ Abdourahmane Jaxate mii ah wax dëgg yàlla dañ koy beral cant ndax ñëw na ànd ak tutànk yi nga xam ne ay taalibe lañu di leen jàngal alxuraan leen tarbiya nekk sëtu mbay sëtu sëñ mbay jaxate waaye yow daaray alxuraan nekk sax ci diine ji waaye nekk sax ci yoon wi ànd ak sëriñ Jili Diop waaye ku mel ni sëñ Mame Balla bi nga xam ne tamit mooy waxtaanee bis bi moom tamit mu ngi toog waaye noonu la ñuy siyaaree sunu waajur yi fi nekk sëriñ Baye Mbaye Ndiaye ak Baye Mbaye Mbow ñoom tamit ñu ngi fi ak ku mel ni. Baye Ousmane Ndiaye moom tamit mu ngi ci mbooloo mi kon dañuy jox sëñ Jili Diop mi nga xam ne moo ànd ak sëñ Abdourahmane mu ubbil sëñ Mame Balla fu euh, ko defee sëñ Mame Balla daal di def waxtaan bi balaa muy noppi jàngkati xasida yi ñeneen ñi danañ yegsiwaat xam naa ne guddi gi gàtt gi daal guddi gi moo gàtt ak nii ni ma ko waxee woon sànq ndax nit ñu bëri balaa ñuy ñëw bay reer bay ñëw day xaw a bay taxul liggéey bi day xaw a guddi waaye am nañu yeneen ay jàngkat ñu bëri macha allah jaar si kon bisimilah sëñ ಯಾರ ثم أقيم خوفا وخوفا mooy Miftaaru Xuyóor moom ak am di Tall ak man nga xam ne yàlla def na tamit mu nekk boroom xam-xam boo xam ne nii jaar na ci daara yi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde faatma jóge fi jàng ji Maroc jàng Égypte ñëwaat fi jàngat Serigne Abdourahmane Mbacke mi nga xamante nii mooy bu daaru muxti Serigne Khadim si la doctorat tamit ñëpp xam ko nekk suñu wëlëre moom tamit jaar na fa mu jàngal ko kon loolu doy na xam-xam doy na tamit mu nekk ki nga xam ne mooy def waxtaanu fajar gi jant bi FM ak Ceneer FM di def tamit daare Cheikhul Khadim ci jant bi FM lëkkaleeg Ceneer FM fii ba Louga jàpp Touba Mbacke ba Jolof yàlla def mu jiite tamit li nga xam ne nii mooy wàllu kirsi bi nekk biir rajo bi si Serigne Cheikh Aliou Mbacke Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Aliou mu sëñ Moudou Sow moom rajo boobu kon loolu doy na ni ko sëñ Bamba waxee tënkee ko noonu nga xam ni dafa mel ni xam-xam lay waxee euh, tey nag mu war a dugg ci thème boo xam ne nii mooy wàllu kàddu muy dëgg ak ngor maanaam li nga xam ne te ni di dafa lëmbe jamono ji ci yu bëree bëri rawatina wàllu portable yi nga xam da ngay woo nit ki sax mun la maa ngi bërëb sàngam fekk yaa ngi toog jàkkaar loolu lépp xeet la yoo xamante ni day bokk ci yàqu-yàqu jamono ji sam ni ko mat di bàyyi xel ndax mu toll ni jamono toll na foo xam da ngay waxtaan ak nit sax ni woo ko téléphone mun la maa ngi bërëb sàngam fekk mi ngi ci oto wala yaa ngi toog jàkkaar moom su ko defee waxtaan wi tey dafa tënku ci lan mooy dëggu ak wax lu du dëgg Euh, kon sëñ Mame Balla bokk tamit ci taalibi sëriñ Moustapha Mohamed mu sëñ Mbàkke Soxna Lo mooy sëriñam ñu bokk ak moom kon euh, loolu munu woon ñàkk ñu yëkkati ko ci ndax ay at a muy def kàddu yi fii te mosu ñoo xamalal nit ñi ni moom wet gii jaar na fa waaye nit nag bu la dee defal saa su nekk mbir moo xam ne ni année bu nekk mu bàyyi tey jii muy wax ak ñun am na ñu ko yitte woon wax xam koo jëloon waaye daf leen xamal leen fii nga xamante ni nii moy bis bi mom waxtu bima fay wara def waxtu wu soxla ci man bu ko meuna soxla ci man sa daayira bi soxla ko mom duma meuna dem kon loolu tamit kóllëre mënu passé euh kon seigne mam Balla ñi ngi lay jébal kàddu gi euh di la wax ne bismillah aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma inni a'udhu bika min syaitanir rajim رب أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب أن يعذرون الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى وخصوصا نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي surtout yaa Fata kul yow min saadatan wa bi yabasir xaw mi barka Cheikh Moudou Moussa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara ci guddi gu tedd gi di laylatul xadar muy guddi gu mag koo xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko jagleel xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy guddi gu bari ay secret waaye bari ay jagle yi ci lëbu wante li ci am solo rek mooy bàyyi xel guddi gi ba mën cee jariñ xam nga ni laylatul xadar suñ ko tudd waxee rek mooy guddi dogal foqahaaw yi dañ cee wuute ci lu bari ñenn ñi dañu wax ni sunu borom subhanahu wa taala ci lay dogal jëfi jaam yi ci at mi ñu war a fekke déwén ñu wërta fekkee déwén ba ci xataa ba ci wërsëg yéeg yépp ñu wax ni ci la koy dogal loolu borom xam-xam yi dañ cee wuute alxuraan daal nee na fiiha yafraxun kullu amrin xakim amran min indina loolu nag euh, day tegtale ne kon sunu borom wax na ne dana teqale ay mbir ci guddi waaye boo demee ci foqaaw yu bari dañ ne guddi la yotu xadar la guddi gi ku ne xam na ne sabab bi mooy bi nga xamee ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam nga ne yàlla yónni ko ba mu am fukki at ak juróom sunu borom doog a farataal koor fukki at yeeg juróom yi mu nekk ko fukk ak ñeent yi mu nekk ko Makka bi mu jógee ah, ñett yi mu nekk ko Makka bi mu gàddaayee Makka dem Madina al Munawara Madinatul war ca ñaareelu at ba di quinzième ci ci ci ci ci ci resaala gi di fukkeel ba at yeeg juróom ci la farataal koor ci eh, moom loolu day tegtale ne yantem bi sallallahu wasallam kon li mu war ci saayir bëriwul ndax biñ ko yoni parce que ba nuru ne juróom fukki atam ak juróom booba ci la toll bis jibril ñëw di ko wax nekk di ko misaal ku ñu wax samxuun al Israel bokkoon ci bani israil noonu ab xeexkat di ak yi ci xew nag tam bi moy deug deug lan moy ak ci dañuy wax rek sababu guddi gi xam bi ni netti loolu nag saaba yi jooy bi nett ji bi ko jibli nettee mu ko ni sabay yi dañoo ni kan mo meuna a am joojuy tiyaba ji ni toll parce que xam nga ni alfu sahri muy jinni wer quatre ans la yu tegal ay mois loolu kon bari na sabay waxe loolu sunu borom jox jibril saar wi mu wàccee ko ne ko inna ansalnaahu fii laylatil inna ansalnaahu fii inna ansalnaahu fii laylatil qadar waaye question bi ngir sunu borom pour mu xamal loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wa ma adraka ndax xam nga guddi dogal kon laaj bi mooy yàlla yow ñu ko wàccee yaa ko xam mu ne ko laylatul qadar xayrun min moo gën junniy weer ba ci tanazzalul malaikatu war mooy malayka yi wàcc gi ñu wàcc mais jibril nekk seen doyen yi jiite leen ak ku ca xew muy guddi gu am solo kon guddi gu mat a guddi gu mat a fàttali waaye niñ ko xamee sariyaatu islaam ak yërmande sunu borom subhanahu wa taala yaatu gi mu yaatu moo tax ay wuute du ñàkk ci diine loola waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne rek nañ ko wër ci fani yu mujj fan yu mujj nag boo xasee borom fukki ak juroom rek nang nga koy làmb waaye waxut ne barab sangam la nek borom xam-xam ni nak ñi ñoko andi ni ñi andi ko ni way ala ko li tam so rek moy fasiyene ko magal ngir guddi gu ne ci wéru koor nga am himma aliya maanaam himmatul aliya te mo yitti ju kawé ci say jaamu yalla loola waral yeen nawafil yi ngay jig yëpp ñi di sant nit ki dañuy bëgg nit mëna am tawfiixi tombe ci guddi googu muy guddi laylatul xadar looloo tax kon kon guddi goo am solo la mu mel ne nag euh, mbokk yi dañoo joxoon benn thème sëñ Malick wax na ko bi ñuy def présentation bi waxtaan nooñu ci lan mooy dëgg dëgg ku ne xam ne soo ne dëgg rek dafay am safaan te safaan dëgg mooy li nga xam ne nekkul dëgg dëgg mooy lan mooy yàlla moo ko wàccee moomal ko boppam ndax euh, dëgg ci yàlla la bàyyi koo ñu ko waxee ne ko waxal ne dëgg mi ngi bàyyi ko ci seen boroom te ku mu neex nga gëm ku mu neex nga wedd te it maa xalaqnaa samaawaati wal ardi wa maa baynahuma illaa bil yàlla nee binduma asamaan ak suuf ak li ci diggante bi lu dul ci dëgg laa ko bind kon dëgg mooy li yàlla wàccee jaarloo ci bépp jullit bu gën yàlla subhanahu wa taala mu war caa jaar yaa ayyuhal lisiina amanu kon loola day wane ne ab woote la am nag ñu muy wax waaye lam ca teg mooy ittaqullah wa kunu ma'a saadiqin mooy na ragal yàlla waaye na ngeen ànd ak ñi nekk ci dëgg waaye mu ngeen ànd ak ñi jaar ci yoonu dëgg dëgg jamono àgg si foo xam ne nit ñi bëgguñu sax ku koy wax waxuma laa nag di ca jaar lan lañ bëgg mooy safaaram nga xam ne loolu li mu jur lu dara mooy yàqu-yàqu yi jamono moo ko andi nit ñi àgg ci complexe sax bëgguñu sax nga di ko wax ndax lu tax mooy dafa dem ba raaf lu ñu teg bët mbaa ñu ko dégg tey ña ca jaar dañ leen di wàññi ci ay baaraam loolu di ay yàqu-yàqu yoo xam ne dafa daj topp jamono te li ci ëpp ay idées occidentaux yi rek ñoo ko indi te mooy comme ñu ko xamee mooy tubaab yi muy li nga xam ne it suñ ci ñàkkee jaar. kon la muy tegtale mooy ku jëru ci yoon ci ñan la nga jaar te mooy ku jëru ci dëgg rek yaa ngi jaar ci li nekkul dëgg te mooy safaan bi te ku ne xam na ne ku jëru ci aw yoon lu ne mën ngaa dajeeg moom ci fa ngay jëm jaaroo ci yoon mooy mën nga riir te ku jaaru ci yoon moom fuy fii rek lay wax mooy fuy fii nag mooy euh, ñu ko xamee rek fii mooy fan yàqu-yàqu yooyu àgg ci sunu borom subhanahu wa taala wàccee alquranul karim yónni ay yonent waaye yonent yi ñun ñëpp mooy ci war woowu la leen jaarloo waskur fi kitaabi ibrahima innahu kaana sadiqan nabia mooy bi muy wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax daf koy wax ne ko fàttalikul ñi la fi jiitu woon ku mel ne ibrahima ku mel ne idrisa ko mel ne ñoom ñëpp ismail mooy kenn ko ne ci ñoom téere ba ma la jox mooy la man wax ne la nag te jaarale say nit dëgg rek la mën a nekk loolu moo waral kon dëgg ci yàlla la bàyyi koo waaye ci kan moo ko moom mooy ki ko gëm te bëgg cee jaar waaye kan mooy ki ci nërite jaar mooy ki naafiq mooy ki ci nërite jaar te bëgg jaar ci leneen kon kooku moom mooy eh, li nga xam ni mooy safaaru dëgg yàqu-yàqu jamono àgg ci ni ma ko waxee léegi ba ci soo demee ci waxtaankat yi jàngalekat yi su ma ko waxee mooy moo xam ñi jàngale ci classe yi ñuy waxtaan ñi nga xam ne tey ñoom la ñuy waral di roy di leen topp di leen déglu ñenn ñu ci bari sax dañoo laj jaar ci weneen yoon woo xam ne moo dëppug seen bakkan waaye jaar ñu ci yoon wi nga xam ne dëgg dégg mooy dégg yi nga xam ne ci la yàlla jaar loolu ñëpp ndax fal xaq min rabbikum dëgg sunu borom subhanahu wa taala la jëm fa la bàyyi ko teyit dafa sant jullit ñi ñu war a cee jaar bañ koo wàcc te loola mënta am lu dul dañoo nangu ne ay jullit lañ xam ne ñeneen ñi bokkal kawlu bi te mooy ñi nga xam ne dañoo bokkal ñu ay nit nit ñu ko xamit ñoom ñu am lu ñu wuute ak ñoom mooy li ñu wuute ñoom mooy ngëm-ngëm ndax sunu borom subhanahu wa bi mu ne yaa ayyuhal lazina aamanu kon lam wax am na ñu tax muy wax waaye wax jay am na ñu ca bokkut te mooy ñi nga xam ne ñoom gëmuñu ko dañ koo wet mu mel ne kon ñàkk jaar dëgg googu àgg ci nit ñi léegi buñ demee ci comme la euh, li ñu tuddee al wasaayil jadid te mooy niveau technologie bi bi mu ñëwee nag gën gunge nit ñi ci yàq yàqu yooyu gën a gunge nit ñi ci ñàkk a wax dëgg gën a nit ñi ci ñàkk def dëgg gën a gunge nit ñi ci lépp loo xam mooy jëf ju safaanoo te loolu lépp du dara lu ay xalaat ay yàq-yàq yoo xam ne tey jullit ñi ci lañ nekk jullit ñi ci lañ jaar ba tey kenn xàmmeetu leen ak ñi nga xam ne du ay jullit nga xam ne tey soo demee ci ñi ngi tudd ay tubaab te day mel ne tey lislaam ñoom ñoo koy ñoo koy doxal ñun ñooy julli waaye ñoom ñooy dox dëgg dëgg lislaam ndax yërmandi ak ak dëgg gi am ak fonk wax ak ñàkk foo si rendu ak fonk seen kàddu ak lépp luñ lay wax luñ ca nar lenn lu cay ay wor day mel na loola ñoom julli ñi lañ koy weccax ak ñoom nga xay loolu suñuy valeur la suñuy jikko la ñun ñoo ko moom waaye léegi dañoo wëlbatiku weccax ndiko ak tubaab yi tubaab yi jël ko nga xam ne kon léegi la am mooy ñoom ñooy dox dëgg-dëgg lislaam ndax koo ci waxal du la jaay nax la du la du la joxe rendu fausseté la te li nit ci moom la lay wax mais est ce que loolu li ëpp ci jamono ji léegi nit ñi ngi ci dox loolu bëri bëgg lépp luy dëgg loolu lañ gën a favoriser waaye lépp luy ay lépp loo xam ne nii mooy dëgg ñu wan ko gannaaw waaye lépp loo xam ay caaxaan la léegi moom la teg seen kanam ñooñu la ñu roy ñoom lañ teg suñu kanam ñoom lañ def li ñu tudde ay star wala ne lu ñu leen mën a tuddee lu tax parce que ñooñu ñooy caaxaantal yi nga xam ne dañoo wàcc njaar ci yoonu dëgg waaye ñooñu lañ favoriser kon loola la muy tegtale mooy loola waral loolu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ne woon alsimo tariqal xaq wala taqarrankum qiilata saalikin alsimo tariqal xaq wala taqarrankum qiilata mooy na ngeen takkoog yoonu dëgg waaye bu mu leen war mukk néew ña ca jaar ndax lu tax mooy lam lay waree mooy gannaaw ña ci jaar bëriw rek ko da jàpp ne dëgg amul njëriñ te loo dëgg aw xal la woo xam ni ku ko ngëb rek boo amul sens da ko sànni te la la war ba doo ca mën a jaar mooy fa nga koy ma ko waxee léegi mooy bëriwut nga fekk nit ñi jaar ci mais nit ñi dañoo jaar ci weneen yoon woo xam ne bokk te yoonu dëgg yoonu tappale yoonu caaxaan nga xam ne léegi nit ñi ci loolu la ñuy dund te loolu soo demee ci ba ci ñi nga xam ne tey ñoom la ñu tuddi ay kilifay diine nga xam ne ñoo nekk ci suñ kanam ñu war leen a roy ñu ci ñu ci bari dañoo wàcc aw yoon bu yàgg jaar topp seen bakkan léegi ñenn ci njaboot gi leen topp ñoom itam wañu ko topp leen jàpp ne looluy dëgg te fekk na loolu bokkut ak lii dëgg ay caaxaan rek ci lañ jaar te loolu it bokkoon ci sëñ tubaa bi ñuy jël beenu bi ñu taxawal yoon bi ñuy dénk ndaw yi da leen a lool ne leen képp wala si moom man la yasaalu aabida li rabbi ilal huda xaayida mooy bu leen dañ mukk di takkoo koo xëy dañu di jaamu boromam waaye dañu di woote jëmi ci boromam waaye gis nañ ne tey ñooñu nga xam ne ñooy ay nit liñ leen di tuddi nit diin ak tar tarixa buñ mën a nekk ci toroxo suuf yi rek tey ñooy gurgur ndaw ñi jaar nañ ci weneen yoon wax ay liñ ngir wax dara du ci dëgg ay tappalekat rek lañ di wut luñ dundee mais léegi ndaw ñi ñooñu lañ topp ak jigéen ñi que ndaw ak jigéen dañoo yomba jaarle ci yoonu lu dëgg parce que lu tax ñoom seen bakkan da leen di jege waaye da leen di jege lool seenum xel du mat nañ war a maturé ba tax nga lépp lu nit di woote bu ca mbooloo bare dañ jàpp ne mooy dëgg mu mel ne loolu ay yàqu-yàqu la yoo xam ne gis nañ ne daa fees dellu penc bi mu nekk loo xam ne kon dafa mel ne kon jot na ñun ñëpp ñu jot ñu taxaw seetlu bàyyi xel jamono ci yàqu-yàqu yi ak ñàkk jaar ci yoonu dëgg te loola boo jógee ci wàllu diine boo demee ci wàllu addina te muy ñi ñu tuddee tey ay politiciens nga xam ne tey ñoom ñoo ñu gouverner ñooñu moom ñoo njëkk a ñàkk jaar ci yoonu dëgg ci tappale lañu jaar. ñoom itam boo ko defee nag léegi kon fan dëgg di am mooy dëgg du mën a am fenn parce que ñi yor ñi nga xam ne ñoo yore diine ji suñu wàccee yoon woowu topp ñi nga xam ne wàllu addina lañ jëm nga xam ne tappale ak caaxaan ñoom ci lañ fas yéene di dund kon léegi ban problème mooy am mooy ñun ndaw ñi comme les senes bi ñooy am problème waaye surtout jigéen ñi parce que lu tax mooy léegi fan duñ am kenn ku leen mën a teg ci aw yoon yàq yàq yooyu moo fees dell jamono muy lu doy waar loo xam ne kenn mënu koo xam te loolu gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu koy wax xamoon na ne dafa waxoon ne jamono ngi ñëw joo xam ne dëgg dana doon xalu sawara woo xam ne ku amulu fit ku ne bu duggee sa loxo danga ko sànni danga ko sànni te danga koy sànni ci biiru mboob nga koy sànni mu taal lu bari loolu ci lañ toll mu yàq yàqu yooyu nañ xool rek jamono ji mbokk mi kenn ku ne na nga bàyyi boo génnee sa buntu kër ba ba ngay dellu si li ngay teg sa bët moom environnement bi ngay dund lépp mooy lan la mooy environnement bi dafa am problème parce que lu ko waral mooy yàqu-yàqu yi moo dem ba loolu ba ci xale yi judd sax ci ci environnement boobu la ñuy judd te mooy ñàkk a jaar ci dëgg ay caaxaan ay tappale nga xam ne léegi nit ñi ci loolu la ñuy jaar jaamutuñ yàlla ragalutun yàlla toppatun yàlla waaye léegi lan la topp muy seen bakkan ak i pooki caaxaan kat mais loolu lu doy waar la loo xam ne jamono moo toll foofu te bu ñu bàyyee xel àddina dafay àddina dafa doy waar ndax àddina soo ci feeñee juddoo maanaam ba xàmmee nit ki fokk day am ay bëgg-bëgg li ñu bëgg rek ni ñu ko xamee li say morom bi bëgg ay bien ni ñu ko xam yëpp dafay daje ci sam xel nga di ko bëgg yooyu nag fi ngay toll mooy seytaane léegi day daal di taxaw ndax bàyyil xel ne sunu borom daf ne ko dana woon sunu borom keroog ba nga xamee ne yàlla dàq na ko ci yërmandeem daf ne ko woon fa bi ma aqwaytanii la aqudanna ci ci bew te gi ma bew mooy danaa ni dikki sa yoonu siraatal mustaqim yi jóge leen penkook sow càmmooñ ak fu ne ngir man leen a gàllankoor ba àgg ci ne ko wala tajidu aksarahum saakiriina mooy la ëpp ca ñoom doo fekk ci ño ak ngëm loolu a nag seytaane boobu nga xam ne tey moo jub laxasu jàkkaarloog ndaw ñi jàkkaarloog jeunes yi comme jigéen ñi fexe ba jaar leen ci weneen yoon woo xam ne mooy yoonu caaxaan parce que léegi lu tax mooy boo caaxaanu doo mën a am ci tappale nga mën a dund lu ko mooy boo bëggee jaar ci dëgg li ngay liggéey boo ko tegee ci dëgg doo am ñu dema dem ba loolu lañ def sam xel ba jàpp nañ ne léegi ku mën a doon booy xëy sa kër ba ba ñëw mooy la nga war a def lépp mooy la ngay am ci ci tappale nga ko war a ami waaye wuroo koo jaar ci dëgg comme ci mën a doon nag de manière générale comme mën a doon rek yaa xam koo ci tudd nga xam ne loolu mooy li nga xam ne pénc mi moo fees del nga xam ne yàqu-yàqu yooyu dem nañ ba wax naa ko léegi doo xam ni ki jaar ci dëgg ak ki jaaru ci dëgg comme ni ko yonente bi alayhi salaatu salaam jàngalee woon nga xam ne ñu baax ñëpp loolu moo taxoon ñu diir siwaat ñu ñëw fi ngir rek li nga xam ne moom la yàlla yónni yonente bi alayhi salaatu salaam ñu war ko beesalaat tegaat ko ci yoon yoon moo tax suñ tubaab yi wax ne kaada taraka rasmi daari xat afa fii saa samani li mu jël on fa gis nga de daf ne xaw tuut bi may ñëw di woote sariyaatu islam sunna su fekkoon ne ab dëkk la dañuy wax ne yoon wu ci jëmal ràpp na ba kenn amul foo cay jaar ba di ko xam kaada taraka rasmi daari xat afa fii sa samani li mu jël on fa mu mel ne dafa mel ne dafay ku ko laaj ne ko waaw lan mooy cause bi wala lan mooy sax mu ne historique historique ixtifaa asaaru salaf li bitee xat su ne bay na xalaf mu ne dara wërëbut loolu nag tappale yooyu mooy fi jamono tollu nii nga xam ne tey li fi mag ñi sosoon teg ko fi lépp teg nañ ko ci ay tappale ba couleur ko seytaane couleur na ko ba ñëpp jàpp ne lenn la te gis nañ li ci ëpp léegi dañ koy tuddoo rek waaye waaye bokkut ak li mag ñi doon woote mooy tey toujours rek dama koy wax ci tarixa yëpp boo demee da nga cay gis ay problème yoo xam ne la nga cay gis lu bees la loo xam ne dafa dab yoon waayu sosu te doo xam fu mu ko jëli te ay tappalekat rek ku ci dugal tey ñuy bokk bokkul ba bokk ci rek bu ci dugal te bokk nit nga xam ne loolu moo yàq yàq yàq yi nga xam ne tey moo am problème ci yëpp ci toroxal suuf yi loo taxoon suñ tuwaa ne euh, euh, foofu sax damaa damaa anticiper bay bi waaye dafa wax ne waxee dam dam ne euh, wa tabiata siyaamu sudu siyaamu suyuqi saawil hodori saawil saawil hoda wa nuuri war a soog nee na bi nga xamee ne yàqu-yàq yi am na ba kenn xamatul yoon mi ngay jaar ba mën a jaar ci yoon bokk na ca mooy mooy wa tabiata siyaamu suyuqi mooy jikkoy sëriñ su baax si fi newoon ñu ne woon ci njub ñu jaaru ci yoonu siraatul mustaqim ñëpp loole nag mu ne la ko andi mooy historique iqtifaahu asaaru salaf li bidee euh, li bit in xat suy na bay na xalaf mooy bidaa boo xam ne dañ ko rafetal ci diggante kootaay mooy kilifa yi fi ne ku fi ne ba dem boo fi boo fi la nga fi bàyyi woon soo ñëwee ñu kulóor ca leneen mooy tappale yooyu moo dema dema dem ba dëgg mënatut a am fenn koo ci wax koo ci dégg dangay dégg kilifa ko xëy buy wax day logg logg waaye lam wax lépp dara du ci dëgg parce que lu tax mooy xam na ni jaaru ci yoon te xam na ni lii dëgg bu ko waxee mën naa wéet fam te it bëggut a ndax jamono moom daa mel ni jamono joo xam ne nit ñi ñemeetun mooy da ngay bëgg foo ne mbooloo wër la ne loo wax ñu ferta su ne la est su ko defee nag léegi la ngay mën mooy da ngay jaar ci aw ñal ñu ñu tëpp topp la yow itam nga ànd ak ñoom rek di dem waaye doo jaar ci yoonu dëgg parce que boo ci jaar da nga koy wéet te it ñoom mel na ni ñemewul wéetaay loolu nag ay yàqu-yàqu la yoo xam ne moo fees dell jamono te wax naa la ko rek foo dem nag foo dem ba dem ci sëriñ seeg politiciens yeeg nit yeeg ñëpp ci foofu rek lañ jaar mais dëgg moom kenn néew na da koy wañ say baaram ñi ci jaar yàqu-yàqu yooyu ne nga xam ne léegi yow li nga ciy tiit mooy futur mooy ndaw ñi war a ñëw senes bi nga xam ne dañoo war a ñëw lan lañ fiy fekk loo xam ne bu ñëwee dañ ci mën a jaar ba mën a wan ni lii mooy patrimoine bi nga xam ne wala tarika ji nga xam ne moom la ci seeni bàyyi woon ñu mën jaar ngir topp seen borom subhanahu wa taala parce que li fi nekk lépp couleur nañ ba kenn mënatu koo xam te ay tappalekat rek ñoo ko def te jubluwuñ ci wut luñ dund rek waaye bu fekkoon ne dañ koo dañoo bëgg rek jaar ci aw yoon jaamu yàlla mooy kilifa yi fi jaar liñ fi bàyyi doy na bind nañ bàyyi muy lu leer nañ waaye dañ koo teg ne bu ko defee nag léegi la ñuy def mooy ay lobby la ñu yoo xam dañuy dugg ci biir tariqa suufi def ay lobby di jaayante ci seen biir di ragalante ay gannaaw waaye duñ jaar fa nga xam ne dëgg-dëgg mooy yoonu siraatal mustaqim mi nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala moom la santoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko haasa siraatal mooy sama yoon wii lii mooy sama yoon topp leen waaye wala tamit subula fa tafaraqa an sabili mooy bu leen topp aw ñal mukk ba parce que lu tax mooy loola bu amee da ngeen teqali ko te bu teqali ko kenn ku ne di woote ne mën a mën a te kenn du ca dara su ko defee yàqu-yàqu yooyu nag muy lu yéemi loo xam ni fees mu fees dell jamono la ëpp ci nga xam ni kon dëgg amatut ñenn ñi lañ yor lañ ca ëpp lépp ak njabar rekk la du dara parce que xam nañ ne ci njabar rek lañ mën a jaar ngir mën a eh, récupérer ndaw ñi récupérer jigéen ñi ngir mën leen a jaaral ci fiñ bëgg ñu jaar. waaye bugguñu pour jaarale leen fi nga xam ne fi la yàlla bëggoon doomu aadama jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko ñu baax ñi jàngale ko bëgguñu ñu jaar foofu xasit muy lu doy waar loolu waroon nag laa yastawi xabisa wa tayib yàlla ne du yem mukk lu baax ak lu bon donte wala ajubat kasrat donte li nga xam ne li bon donte da laa yéem ak bëri nit du mën a yam laa yastawil xabis wa tey wala ajowat kasr donte li bon bari na yàlla nee na li baax dëgg ak fen yàlla nee na woon yonent bi sallallahu alayhi ne duñ mën a yem mukk bay saadi taxaw duñ mën a yem ndax lu tax mooy dëgg mooy mujj wala wax na ko bu yàgg muy lu leer muy lu dëgg ndax euh, ku ne xam na ni dëgg moom alxaqu saabitu day sax alxaq saabitu dëgg moom du fi jóg mukk mukk mukk waaye baat wa annal baatu nag euh, euh, caaxaan nag moom day day day man suuf rek wa in xalaa nag doonte kawe na it suuf rek lay mujj kon yàqu-yàqu yi nga xam ne kon jamono mooy dafa jot ñu bàyyiwaat xel loolu te bañ a topp yëf yi rek te xam ne yëf yi yëngu na waaye doxul parce que jaaru ci yoon koy doxal ak lu mu mën a doon rek ci doxin wi nga xam ne ñu ngi koy doxee mooy dañuy defaraat jikko yi fexe ba xam ne dëgg yàlla moo ko moom kenn moomu ko ñu fexe ba lépp lu ay tappale ñoo xam ne xam nañ ne rax na ci biir ñu fexe ba génnee ko bu fekkente ne bëgg nañoo jariñu adduna waaye bu fekkee bëgg nañoo jariñu àllaaxira ndax kat eh, dëgg mooy li am solo ndax alxaq laa yaqtaxu risqa wala yaqribul ajal dëgg du dagg wërsëg waaye du jegee ab di su ma waxee dëgg du ma wërsëg su ma waxee dëgg damay gaaw a faatu alxaq laa yaq laa laa yaq taxul risque dëgg moom du dagg wërsëg mukk wala wala yaqrib ajal waaye du jegeel ab di kon li am solo mooy ab jullit ab taalibe day jaar ci yoonu dëgg te mooy ay tappale te xam ne ay caaxaan amul njëriñ waaye ku jàpp ne fen moom ci nga yàlla moom ci fen nga koy amee wala nga jàpp ne eh, eh, sëriñ su baax sii muy kilifa yu baax yi fi nekk ku jàpp ne ci fen nga leen di toppee da nax sa bopp parce que fen moom jëriñul dara. kon fokk ñu jaaraat ci dëgg xam ne dëgg mooy li am njëriñ te moytu lépp loo xëy ay tappalee ki fen la te xam ne loola duñu amal njëriñ kon e, bu ñu demee ba léegi nit ñi àgg nañ foo xam ne say kii koo ciy waxal sax koo ciy waxal daanaka fii fi nuu ko rek du d'accord ak yow maanaam da wax nga giñ waat fen mu doog a d'accord ne yow yow d'accord na ak yow waaye li ngay wax moom boo nangu ni d'accord na yow doo giñ ndax yàlla moom yàlla xam na li ngay wax te yàlla li nga wax yàlla nga koy seedeloo mooy moom du mën a d'accord ak yow ba tax na léegi jàpp nañu yi ngay dégg gis nga yenn slogan yi ngay dégg léegi ngir ko ay dóor ak ay waaxoog jaar ci ko yooyu yëpp tappale yooyu yëpp du dara dul rek mooy ay naafiq rek ñoo ñoo ci jaar di ko teg yooyu yëpp ni ma la ko waxee léegi rek nga xam ne yëpp mooy yàqu-yàqu la yoo xam ne dafa fees dell jamono boo demee li gën a doy waar tey liggéey daanaka gis nga ne ci fànn boobu ci la ñuy dox soo demee ci ñu sëy yi nga takk la ci ëpp ay warante moo cay am mooy da wax ndaw si wax loo xam ne yow ñu nga wax dara du ci dëgg waaye bëgg nga koo war ba takk ko wala nax ko ba takk ko wala bëgg nga ko bëggu la nga fexe ba jaar ci kawam nax ko ne ko maa moom lii am naa lii fii laay xëy fii laay gool dara loolu moo fees dell jamono ji muy yàqu-yàqu yoo xam ni kenn mënta xam lu mu toll nga xëy ay trompo lañ comme ñenn ñi nga xëy noonu la ñu takkee soxna yi ñu nga ko xam nga xam ne loolu moo fees dell waaye soxna yi it ñoom it am seeni stratégie yoo xëy ci la ñuy jaar ba di la nax di la di lekk sa alal dugalal ma lii may ma kii dugalal ma degal ma connexion di la jaar ba nax la tappale yooyu léegi moo fees dell pénc nga xam ne lu nga dem ci commerçant yi lépp ci ñiy jënd ko jaay léegi li ñuy jaay lépp ci ay war lañ koy dugal ay san ay tappale li ñuy jaay lu primé comprimé bu bu primé ci ci loolu la ñuy dund nga xam ne loolu société bi société bi moo am problème société bi moo am problème te problème bi mu am rek mooy ñàkk jaar ci yoonu dëgg waaye ñàkk a waxante dëgg waaye ñàkk a defante li nga xam ne mooy dëgg gis nga problème bi nga xam ne tey dañ ko am muy crise bi ñu am boo demee comme la nga xay mooy actualité bi violence bi yi ngay dégg yëpp lu ko waral mooy ñàkk jaar ci dëgg rek waaye buñ jaarul ci dëgg rek suñu borom moo ñuy jox sécurité waaye yàlla moo ñu waxoon ne bu ñu noppee jaar dëgg rek noppee te am sécurité léegi léegi man ak yow ak ku mu mën a doon booy dem booy dox yaa ngi bàyyi xel sa bopp comme mën a doon tey la nga yor bu matee bu dee weccata nga ca képp boo ko yoree sa poos mbaa nga ne ci barab yaa problème lu ko andi mooy ñàkk jaar ci dëgg lu ko andi mooy ñàkk def dëgg ak ñàkk rox dëgg dëgg amul fer soo demee ci tribunal yi amul soo fu foo dem rek de manière foo dem léegi la fa ne mooy ay warante ay naxante ñun léegi buñ bëggee jaar ci loolu bëgg ci dund ba xëy faatu fan lañ jëm mais ndaw ñi fi bëgg a bàyyi lan lañ leen di bàyyi bon nga xam ne léegi gis nga wax naa ko technologie bi Malick Mbow mi ngi koy junj léegi nga xam ne da gis koo xam ne da nga koy woo bu ne la maa ngi ñëw te mu ngi cib lalam wala nga woo ko mu ne la maa nga barab sàngam wala damaa génn wala nga woo ko mu ne la nga xam ne loolu lépp de yow da ngay dend nit ci oto mu waxante nit da ngay moom li mu wax yow mi toog yow yow da ngay rus parce que wala maa ngi barab sàngam wala ma dara. warante yooyu nag ak naxante yooyu nag lim ñuy jural mooy insécurité bi nga xam ne tey moo ñu dab te kenn mënu ci dara du état du kenn ñu ci dara quant à defaraat suñu jikko dañu am gën a am problème te day gën di yokk mais du wàññi ndax yoon bi ñu yàlla jaarale woon yonente bi sallallahu alayhi mu jàngal ko ko mu rëdd ko Mawlaay Xaadim Rasul radiyallahu taala anhu jaar ca jàngale ko wàcc nañ fi mu ne néew na nit ñi tey ngay waxtaan ba tudd. duñ bëgg sax ngay tudd di tudd mbind li ñu tudd mooy ay xisa tappale rek sëñ diw daa dettal diw sëñ diw bam joxe nga meññeen meññeen moo xam ba ko sëñ bi wadd soroo ko mosoo ko ban njëriñ la am nga xam ne loolu yow ki koy dégg di ko yéemu di daanu ba jox la alalam loolu lan la jël parce que moom meññeen moom fikkiwu te moom mi koy wax wala mun la jëli naa ci menn mag te du la tuddal mag te mag moom xanaa ne fi ñoo xam dëgg la wala fen la waaye bëgg a fen jaar ci kaw nit ñi bëgg luñ la jox dana tax ne da ngay gis lépp ci waxtaankat yi baas yi ay dara du ci nga xam ne yooyu léegi loolu loolu moo loolu mais nga xam ne léegi kon lan mooy diine ji léegi diine ji léegi kon mooy lan waaye mag ñi liñ jàngale woon mooy lan léegi daal dañu bëgg jël affaire def ko ay folklore rek waaw folklore folklore caaxaan caaxaan tappale loolu loolu dañuy war suñ bopp te duñu jariñ parce que nit bu bëggee jaar bu bëggee jariñu day jaar ci dëgg dëgg moo am njëriñ loolu tax fi nii da ngay gis ne da gis ay nit dañuy baas ab baas fare ci alal judul jeex waaye buñ ko faree alal judul jeex ba woo benn waxtaankat au lieu que mu woo leen wax leen lu leen di jariñ ci seeni jikko lu leen di jariñ ci seeni diine waaye léegi li ñu bëgg mooy muy wax loo xam ne dañuy tàgguk seen sago daaneel baas ba toj sees ya toj caméra ya ñu ne waa ji toj na mais loolu erreur loolu amul njëriñ est-ce que jotul ñu fexe ba recadré waat fexe ba dellu si waat waxtaan yi nga xam ne ci lañ mën a jaar ba jëriñu ndax mag ñi kat dañoo jaaro ndax benn borom xam-xam daf ne fa tasabahu fa tasabahu fa euh, maanaam daf ne fa tasabahu in la sa euh, daf ne euh, nañ nañ leen fexe ba roy leen nuru leen waaye su fekkee mënuñu leen a nuru it waaye roy ku baax dana taxaraw mu mel ne kon day am solo ñu delluwaat ci seetaat jikko yi nga xam ne moo mën a amal njariñ te loolu lañ fi mën a bàyyi suñu njaboot ñu fexe caa jaar waaye njàngale mi nga xam ne sëñ Tuubaa andi woon na ko fi mag ñi andi ko fi ñu fexe cee jàngalewaat indiwaat ko loolu mu ëpp njëriñ te loolu moo mën a may tey problème bi ñu am mooy tiitaange ji am tey ba kenn ku jaaxle dara mënu ko dellu si waat du jaar ci dëgg rek bàyyi warante yi bàyyi fenante yi bàyyi tappale yi te jaar ci dëgg te xam ne dëgg moo am njëriñ waaye leneen luñ jàpp ne mën nañ caa jaar dañuy nax suñu bopp parce que lu tax mooy yàlla moom kenn mënu koo nax te it yoon wam ñu jaarale buñ ko wàccee te jàpp ne mën nañoo jaar ci yoonu am sécurité am jàmm yu ëdd nag àllaaxira kon suñu bëggee jariñu nañ fexe ba bàyyi xel loolu bàyyi xel njàngale mag ñi loolu waraloon sëñ Tuubaa dafa ne woon xol mu nabbi an yaa xaw mi gis nga de sëñ Tuubaa dafa ne qultu munabbi'an yaa qawmi intabi'u min sakrati nawm Sëñ Tuubaa daf ne yéen samay nit yéen samay nit yéen samay nit te loolu kenn ku ne jàpp nga ni fi yow yaa gën a jege sëñ bi ñëpp mu ne yéen sama intabi'u min sakrati Sëñ Tuubaa ne na ngeen yeewu ci nelaw yi màndi tey man màndi tey nelaw xay na maanaam tey nelaw suñ ko waxee mooy nelaw yàndoor te nelaw yi maanaam li ci jublu waxu tëdd nelaw di xaram bi mu ko waxee ba noppi daf ne laa taj xaloo mun tax mun mun tafaan xat bu leen def lépp loo xam ne dafa neew wala dañ koo wal mustasna ngir koy duufal fa saaka jaalul ulima te loolu mooy jamono ji léegi dañoo jël dara wal ko ba mu jilee dañ koo wal lee daa neew te mbokk yi ñaar benn amu ci njëriñ ndax liñ wal moom boo ci laaleeg dégg mu peer li new it day rees mbaa mu euh, kalaat rek suñ tubaab bu leen def lu new yi mbaa ñu wal ko ngeen defe ne moom lañ duufal te loolu mooy li xew parce que léegi ñiy waxtaan dañ leen a duufalal mbir mi te demewut noonu sëñ jiw dekk di benn sëñ bi su dekk sa dëkk ñoom ñuy fen rek dara amu ci yàlla am na am na am na am na fayda ci toll ba muy bind ab jaamam kenn fikkiwu ko kon kenn mënu koo dekkal dama ci ma sa benn waxtaan benn benn am benn mbokk bu ma Euh, ne ma ne ma sëñ diw moo la soxla kilifa gu mag la bii ab xalifa ba mu ba mu ba mu ba mu ne ko jox ma ko mu wax ak man ne ma damaa diglu nga wax loolu wax nga ko ñaari ñaari yoon démb ci suba wax nga ko tey ci suba waxaat ma ko waaw mu ne ma wax jooju de daa mel ne man nga ko waxal ma mu ne waaw mu ne ma mën mii di wax ak yow dañ ma koo waxal ne man di sëñ diw damaa deewal sëñ diw dekkal ma te dara amu ci jamono dem na ba woo naa RTS ngir bëgg a def déclaration sama njaboot ne ma gannaaw yàgg na ba ak si fii boo ko waxee mën naa andi problème ci diggante yaari kër yi te danaa dama koy wax ndax loolu sëñ Abdou Latif Diène xalifa sëñ Issa Diène moo loolu moo ma ko wax nga xam ne dañ ne daa faatoon sëñ Fallou dekkal ko dara arab dara amul dara amul waaye fenkat yi ni ci baas yi ñooy wax yooyu ngir luñ leen jox soo ko waxee benn waay yuuxu jox la juróom koo xam ne bu ñëw ci baas bi yetti juróom la yor yoo xam niwut siiw nga wax dara ba mbëkk jox la ko léegi li la wax du la jëriñ loolu ñu teg ci ñett fan am na koo xam bi ma woo daf maa saaga daf ma saaga parce que nit ñi mooy li ma la wax ne la nit ñi bëgguñu dëgg bëgguñu koy wax day am fi ne dafa am yoo xam ne soo ko dee wax nit ñi fu ne lañ lay dëkkal mais da xam yow li ngay wax dangay am fitu bu ci am looy tiit xam ne yàlla moo ko moom kenn moom ko dëgg kenn moom fan xàq min rabbi faman sa yóomin faman sa fal yu kafe wante lépp ci waxtaankat yi ak kilifa yu bare bare bare bare muy seigne fallu muy mam Cheikh ibrahim Fall muy mam jaar dañ leen waxal wax liñ leen wax dara dara dara dara dara arab arab ay gaay yu luñ dunde la rek dugg ci baas fekk fa ay gone ci jigen ñu fexe ba waxa waxa wax ba lek li yor jóg dem mais ñom ñuko sax gëmuñu mais est ce que loolu jotut ñu jema a bàyyi yooyu bàyyi fen ya tapali ta xamni deug yàlla moko mo dañ ko def kon li seigne touba ne qultu munabbi an yaa qawmi intabiu min sakratin nawm sëñ Tuubaa nee na yow leen yéen samay nit ci mandite nelaw yu mandite yi mu mel ni ñëpp ne teg mu ne laa taj xaloo laa laa taj xaloo euh, laa taj xaloo nu ma ko waxee xaloo mën tafi xan xat warima bu leen def lépp luñ wal mbaalu ñaw mastasment ngeen koy duufal fa saaka jaalul ulima sëñ Tuubaa ne loolu rii ak rek la ak la te loolu moo fees del duufal dara wala wal dara te araam bu ko defee rek kon dafa mel ne dafa jot ñu yew te bàyyi ni xam ne yàlla moonu bind moonu moom yàlla yit la ñuy jaam amu benn sëriñ bu ne leen jaamu leen amut amut suñ tubaab bind ko digliwu ay tappalekat a koy wax rek wala buñ ko waxi wu noonu it forme bañ koy waxee mooy nuru loola te dara amut kon loolu fokk ñu bàyyi ko xel xam ne ab bi ab bi daa war a xam mooy kan xam mooy lan xam li mu am mooy lan loolu mooy tax mën a jariñu ci li ñu yor kon defe naa la euh, waykat ba ne woon waaye wolof waaye wolof digal ko wolof digal ko ak ak dugal ko xàmmewu ko dëggal ko ak mbugal sëñ Mbay sëñ Musaa Ka waxoon loolu sëñ Musaa Ka nee na wolof euh, digal dugal ko ak digal ko eh, xàmmewu ko déggal ko ak mbugal ko xam nga loolu lu doy waar sëñ ji li yow borom eh, wasiya mor kii mor si nga xam ne loolu lépp day teg tale ne xoolal foofu daan ne daan ne daan ne nit ñi foofu fi ne daan ne suñu dajeeg suñu dajeeg ñi leen di maanaam maanaam maanaam mu wax ne suñu dajeeg ki leen di mbugal sukkal ko suñu dajeeg ki leen di digal sikkal nga xam ne nit ñi foofu lañ toll fi ne nii nit ñi boo naan leen yàlla nee na yonent bi nee na lu baax a ngi nii ñu ne moo waa ji day wax rek kooku daal sa waa ji xamul li muy wax déggal waaye boo ñëwee tappalee fen ba ne xaaw ñu ne waa ji kooko bari xam-xam xam-xam bi xaaw fen la bari kon dëgg moo am njëriñ ñu fexe ba xam ne kon yàlla moo moom dëgg te dëgg jaar ci dëgg rek am njëriñ weneen yoon woo jaar dëgg bis dana ma a ñëw nga xam ne dëgg rek ay ñu bàyyi xel àddina waaye bàyyi xel lii xew-xewi jamono nga xam ne jamono ko indi rek waaye du dëgg-dëgg li nga xam ne mooy li am bu ko defee muy sëriñ bu mën a doon ci sëriñ si bind na lu lu fi lu mat a bàyyi na fi bind na bàyyi fi lees mën a jaar ba mën a jariñu ci moom ndax sëñ Tuubaa bi mu fiy jógee daf ne eh, bàyyil naa leen ci sama njaboot gi ak sama xasida yi su ngeen demee ba gisatu leen sama njaboot gi sama xasida yi na leen doy te xasida yi ku ne xam na ne ñaari xaaj la wala ba ñett waaye rek benn xaaj bi nga xam ne moom da koo jëmi ci lépp luy sariyaatul islam boobu day bëgg taalibe bu ne nga jéem koo xam benn xaaj bi nga xam ne da koo def ay amdaa ay ay ay ay ay ay tagg ay salaatu ala nabi boobu it muy bu am solo boo xëy day defar nit ki parce que lu tax mooy day tarbiya nit ndax lu tax mooy dalay dalay defar dalay tarbiya dalay wëlbati am ci boo xam ne nag da koo jëmi ci ay ñaan yooyu day baax ci képp ku am aajo nga mën caa dem su ko defee loola boo ca sebee di dem ca jumaa ji di siyaara ji di jàng ci xasida yi di jéem a gëstu li mu bind tey ak koo mën a doon boo amul kenn koo xam ne gis nga ku la doyit yow jaar nga ci aw yoon ndax sëriñ moom du dara du koo xam ne dalay teg ci yoon doom nga di ko roy du la boot du la gàdd ëllëg it mënul loo dara lu dul fii ci àddina la lay digal di la tere nga di ca jaar lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bokk nay leer waaye du ceegi ni rek li xew léegi nangam nangam sëñ diw nangam bu ëllëgee di deer yàlla dafa xereñ te lim man bari na teg am na sañ-sañ te moo moom lépp kon da ngay fexe ba jaar ci yoonu siraatul mustaqim kilifa ga ngay am mu di la digal ngay def lam lay tere nga ko bàyyi loolu mooy tax nga mën cee jëriñ bu ko defee kon ñu bàyyi xel xam ne dëgg moo am solo dëgg mooy mujj waaye fen amul njariñ te léegi fen moo fees del ci la ñu añ ci la ñu reer ci la ñu ndékki boo demee ci waaye rawatina c'est le plan culturel te bu ma waxee loolu rek mooy ci fen gi nga xam ne moo ci gën a grave mooy di jëm ci affaire diine maanaam nga xam ni comme li ñuy wax ay agression culturel xoolal léegi boo demee ci réseaux sociaux dangay gis sax dañ lay wax benn menn mbind moo xëy dañ naan la ku ko gis doo lakk ku ko gis doo faatu ci at mi koo te ñaar kat kañ ne la moo ko moom dem na bu yàgg ci ñu ci wala te xamoo ni sax est-ce que ab yaat yooyu wala mbind moomu sax est-ce que mbind moom ku ko gis sax baax na ci nit teg ko bët ndax lan la ndax kan moo ko bind ak li kenn parce que añ ci ay tappale yoo xëy am na ñoo xëy jàpp nañ ne tey fii ni jaamu yàlla fi ñu koy defee mooy ci réseaux sociaux mooy lañ leen di wax lañ leen ñu jàpp ne mooy li nga xam ne te yooyu amul njëriñ li am njëriñ mooy da ngay jaar ci yoonu siraatul mustaqim xam ne dëgg yàlla moo ko moom kenn moomu kenn moomu ku yàlla bind moomu yàlla moo ko moom bu ko defee nga mën a jariñu sa digg ak sa borom subhanahu wa taala te loolu mooy li am njëriñ wante li benn jamono àgg foo xam ne li benn waykat arab waxoon ne fa julluhum isa fakkarta fiihim ximaarun aw si aabun aw kilaab benn benn shaayir dafa wax ne jamono boo ko sappee di affronté nit yi maanaam ngeen baal ma di waaw di di jaxasoo nit jamono nee na ñetti mala rek ngay gis ne mooy ne ci kaw waaye nee na nit moom nekkatu te gis nga loolu boo ko dee seetante rek da xam ne li mu wax nii nit ñi fi ne société bi ci loolu lañuy ñuy dund bi ci loolu lañuy ñuy dund ne nit ñi. nee na boo dee xalaat isa fakkartu fiihim ba dafa ne fa jullum isa fakkarta fiihim lépp ci nit ñi nee na boo dee xalaat ci seenu doxin ximaaru aw si aw aw kilaab mooy da mbaam mbaam eh, eh, nu ñu ko waxee eh, till kël lu tax mu cité ñetti mala yooyu xam nga booy xool ki gën a baadoolu ci mboolem mala yi mooy mbaam waaye kaddu gi gën a ñaaw ci mboolem kaddu yi mooy kaddu mbaam nga xam ne loolu li mu ciy jàngale mooy laa tarfa saw la loqamaan ba muy dénk doom ji daf ne ko bul di yëkkati sa kaddu ndax sa kaddu bul di yëkkati sa kaddu ndax kaddu gi gën a ñaaw te gën a xumb mooy kaddu mbaam waaye moo gën a ña moo gën a ñakk solo te ku ne xam na ne kon gis nga ni waaye bi ci toppit mooy baadoola buñ koy xool ci mala yi mooy mbaam muy bi ci gën a baadoola mbaam moy bi ci gëna a baadoole waaye mooy bi ci gëna nakari kaddu way moy bi ci gëna a jariñ ci ak kaddu mo taxon loqamaan bi muy dénk doom ji mu ne ko e eh, in ankara aswat la sawtul amir kaddu gi gëna bon gëna ñaaw moy kaddu mbaam way bu ñu demee ci til til moy mala bi dakk toñ ci malay romb xarum jamb du romb bëyu jamb du romb ganar romb dara mais lolu gis nga ne lolu gis nga ne jamono bi nit ñi lolu la dund bi ci topp mooy mala bi gën a topp bakkanam mooy mooy mooy mooy mooy li ñu tuddee kël kël nga xam ne daa topp bakkanam nga xam ne léegi moom jàpp na ni sax defatul nit ñi léegi boo dee xalaat defatuñ seen bopp ay nit mais ay mala lañ def seen bopp topp nañ seen bakkan lu leen neex loolu lañ xam moom la ñuy wax moom la ñuy def moo tax mu ne nag fa julluhum isaa fakkarta fihim xamiru aw siaabun aw kilaab nit ñi booy xalaat ñetti mala yooyu rek ngay gis ne ñooy dox ci ci ci kaw bi ci jamono ñetti mala yow te loolu alxuraan daf ne woon am taxsab aksarum yasmaun aw yanqiloon inhum illa kal anham bal hum adlu sabila yàlla dane woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngaa jot lépp ci nit ñi dañuy dégg wala dañuy xalaat de mu ne mel ne dafa mel ni dafa ne koo xamante ko kon seen nopp yi duñu dégg waaye seen xel ma xalaat ba àgg ci ne ko sax illa kal anham bal hum adlan sabila dañoo mel ne ay mala ba mu yàgg sax mu ne bal li fi adlan sabila ñoo gën a réer ay mbaam xam nga yàlla ni mu xasi nit sax dafa yéemi parce que yàlla bu demee ba ni nit moo gën a réer mbaam ah, mala dèjà kon dalay wane ni kon nit ñi ci environnement boobu la ñu muy muy fi ñu toll léegi nga xam ne technologie bi nit ñi moom lañ jël teg ko kenn ku ne yow defe nga ne wastat bi mooy sa doomi ndey mooy say dikkee mooy sa damir mooy lépp mooy sa sëriñ ci nga a gàggantikoo mais loolu c'est grave parce que yow li loolu lan la kan moo ko bind parce que kooku da koo jëli ci internet bi rek fu ko sànni ko rek lii ku ko gis doo faatu ci am ni lii ku ko gis doo dem sawara lii arab parce que kan moo ko bind sawara kan moo ko moom tel boo loo ca topp boo ko xoolee du nasul xuraan ay fenkat ay tappalekat rek ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko ci dugal est-ce kon jotul ñu jéem a bàyyi xel loolu xam ne kon ay fen du jur dara waaye dëgg moo am njëriñ waaye gis nga ne su suñu delloo ci alquran da gis ne sunu borom subhanahu wa taala dafa ne woon e wa in yaraw sabila laa taq laa la la la la laa yataqi soxna sabila waaye wa in yaraw sabila wa in yaraw sabila alqay yataqi soxna sabila yàlla nee na woon nit ñi nit ñi boo leen wanee yoonu njub duñ ko jàppe muy yoonu njub laa yataqi sabila maanaam boo leen wanee yoonu njub duñ ko jàppe mooy aw yoon waaye boo leen wanee yoonu mbewte ñu jàppe ko aw yoon nit ñi foofu lañu toll léegi daal waxal ay tappale nangam nangam wax ay mbewte caaxaan def say théâtre nangam nangam rek léegi loola waral bon ñii wax ci diine ji ñu ci bari léegi def seen bopp ay ay ostaas wala ay ostaas comédien duñ wax nit ñi lu am njariñ nga xay ay yàqu-yàqu la yoo xam ni dañoo wàcc seenu ànd dem fekk ña nga xam ne loolu seen wàll ñu leen fekk leen ca fànn boobu kon dafa mel ne kon jot na ñu bàyyiwaat xel njàngalem boroom xam-xam yi waaye rawatina njàngalem xaadim rasul ndax bu fekkente ne dañu gis ne ba ci wallu teggin wàllu yar moom ci jamono bi ñuy bind naxjul qadaa booba fekk na booba tabja na lool waaye taalibe yi ñoo dem ba xam ne. Eh, danañ dem ba pour ñu gis sëñ bi du yomb waaye su boobaa war naa doon loo xam ne dañ dana leen bindal loo xam ne danañ ca mën a jaar ba mën a nekk nit waaye ba mën a am yar ba mën a ami teggin waaye dañ mën a dund ak nit ñi ci biir société bi hansa wo inni yawma sol ijaba baadal muridina sawi inaba xattala boo nasman awata adabo liyata adabo wasaka wajaba mu ne lenn ci taalibe yi waaye gis nga saawil inaa bala wax mooy taalibe yu am pas-pas te bëgg a yegg ci yàlla ñooña ñoo sàkku ma bindal leen ma nasee leen am mbind moo xam ne danañ ca mën a jaar ngir nu yaru te loolu bi nga ko waxee dam ne wasaaka wajaba mooy lu war la parce que taalibe daa war a xam ba pam xam mooy kan xam li mu bëgg xam fi mu jëm te loola la ko ciy gunge mooy ab yar lay doon ay teggin lay doon waaye war ma lay doon waaye duy caaxaan waaye duy kon buñ jàppee ne léegi yoon yoon yoonu turuqu suuf yi laa siyamaa yoonu murit ñu jàpp ne yoonu fal couleur la wala yoonu caaxaan la ña koy woote ñëpp la ñuy wax du dëgg ay naxe la waaye sëñ Tuubaa moom caaxaanu caaxaan lu wut fal couleur fal couleur fal couleur lu wut sëriñ bi li mu bind leer na la mu bind wuute wut alkitaab wa sunna leneen loo fi dégg benn waaye di la ko wax kuy wut lu mu dundee la rek mooy moytu kon dafay mel ne moo xam nag kilifa diine la moo xam ku mu rek ak fiir la rek xam naa sax fiiru kàpp lay doon fiiru kàpp ñu ko xam nga xay day jàpp bugg waaye lañ wax du dëgg parce que lañ wax bu dee dëgg mooy lañ wax du dàqonteeg alxuraan ak sunna du dàqonteeg ndax sëñ lool loolu la jàngale leneen loo fi dégg waaye wax la ko ne la sëñ ko wax nga natt ko ci alkitaabu sunna gisoo ko ca du dëgg wutalu yat daa bëgg a jaar sa kaw rek waaye lañ wax du dëgg daa bëgg a jaar sa kaw rek waaye lañ wax du sëñ bi moom lu leer lu weex tall la indi lu leer nañ la jàngale bind ko bàyyi ko fi it nag fal su ko da ko fee bàyyi yóbbaaliwu ko yit nag nëbb koy nooxuñu ko it nag ñu ngi fi ku bëgg jariñu da ngay dem ca ña ko ña ña ña ca jaar nga topp ca boo ca toppee boo bëggee dem da dem ca am murit am murit daa war a xam ban yoon la war a jaar ak am murit mooy kan ndax lii nga xam ne léegi man toujours dama ko dama wax ne ak murit saa léegi dama koo genn cëm parce que léegi tappalekat yëeg góor jigéen yéeg franc-maçon yi léegi ñooñu lañu ñooñu lañu takkal garaatu murit saa te dara wutu ko rek mooy ñi leen koy waxal ñuy wut ci ñoom luñ dund rek lañ mais koo xam ne yow murit saa boo xay koo xay dañ ne murit saa la waaye boo ko ko taxawaloon fii képp laa ko laaj ko sangu farata képp ko leeral du ko définiral daan la may c'est pas un non mais xam na képp di di wan la wax parce que lu tax mooy ja kooku kooku boo ko defee ban murid saadix murid saadix mooy kan murid saadix day doon koo xam ne dafay dafay dafay dañ ak riir dafay xam alkitaab wa sunna loo ko laaj mu mën koo layal ba pare na tegu ci aw yoon suñ tubaab bi mu ko wooyee ñeent la waaye li muy gàtt gàtt kenn ko na nga koy natt sa bopp ba xam njàng ci sifaatu saadixil murid arbaxatu nasantu boo xaw fi ixtiraar gis nga suñ waa toujours ay baytam nañ bàyyi xel saa su koy daaneel daf ne melaw murid saadix ñeent la way naa ko ngir bañ ak wow fur iqtiraar te mooy benn waay bu mel ne rek solu takku gar di lëkki lëkki ñu ne murid saadix mu defee ne yàgg na te départ bi tëppale rek te du noonu ak murid saadix du lu ñu dàmb di ko daj da ngay da koy da koy da ngay jaar ci aw yoon ba am benn nga am kilifa jaar ci mu di la tarbiya benn nga xam ci weneen yoon koy jaar ñu jaarale ci yoon wa nga koy mën a amee parce que lu tax mooy mbir mi dafa am aw yoon sëñ Tuubaa bi ñuy jàngale dafa wax ni awalu waajib ala al murid taxsidu saadi min al tawxid qabla istiqal bil infiraad bi sikri waadu wa bi jaar leer na daf ne priorité li war li njëkk a nekk ci ab li war nu ma ko waxee ci wolof li war a nekk njëlbeen ci ab taalibe bi mooy mu am ab yóbbal ci tawxiid ñu ne ko kañ mu ne qabla istiqaal bil infiraad bi sikkar wado mooy balaa demee bay soxlawoo di wéet mbaa muy sikkar mbaa muy jiyaat mooy iblis da koy gàttandu ci ay ndëgg sërëg di ko ca jaarale ba di ko wan ay gént bu defee day yegg na te départ bi waaye bu taw tawhid bi setee rek mooy lu mu ca gis rek dana xam dana ca xàmmee la cay dëgg ak la cay fen te li ëpp ci li ëpp ci ñu jàpp ne egg nañ ba léegi ciy tappale rek lañ mbeddum tappale rek lañ jaar parce que lu tax mooy seytaan lii na gàttandu rek ay gént di leen wax ay martaba sëñ bi ne la déet bi ci topp mooy bi mu la waxee loolu ba pare nag daf ne la nag li nga xam ne mooy sa fardul ay en tant que murid saadiq nga bëgg caa yegg mooy da nga koy xam lan mooy fardul ayni mooy li nga xam ne ndey du la ko defal baay du la ko defal sëriñ bi du la ko defal yaa koy defal sa bopp mi ngi mel ne wanaas xam nga ni nit moom loo ko bëgg-bëgg mënoo koo mënoo ko wanaasu fardul ayni mooy loolu ci gàtta mais seigne bi mu la waxe ba nopi nak mu melni kon legui nak daf ne la bo beugé soubu ba yegg ci yoonu mourid saadiqi ba tay da am aw yoon wa ba'du yasluk in raamal wusul ala yadi mukammil yàq foo rasul gis nga de seigne Tuubaa ne la gannaaw bi nga xamé yi nga xamné legui am nga tawhid xam nga fiq xam ni ngay jamo yàlla sa julli nga xam nokoy julle xam waxtu xam la koy defar la koy yak seigne Tuubaa ne la bu lol amé bu fekke dañ ca bëgg doli dolli leneen kaay mu wax la yoon wa ngay jaar moy wa ba'du yasluk in raamal wusul ala yadi mukammil yàq foo rasul mooy indi sart la mooy nag léegi bu fekkee da ngaa bëgg a yegg suñ tuwaa neer bu fekkee da ngaa bëgg a yegg ana nooy def indraamul moo tax wa baax doo yës nag indraamul mu ne la ala yedd yi mu kammil da ngay dem ci loxoy sëriñ bu mat mu kammil lox de waxu sëriñ boo xam ne ab sëriñu siin wàlla rek déedéet sëriñ bu mat bu mat la wax ba noppi nag ban sëriñ mu ne la yàq foo rasul sëriñ buy roy sunna waaye waxul sëriñ boo xam ne ci boppam la ne day wut lu mu dundee yow yam ndax sëriñ tuwaa nee sëriñ bu la bu bu a lu la gën a bëgg yàlla bàyyi mu leer sëñ Tuubaa nee ab seigne bimu la gëna bëgg luddul yàlla bayiko fa da lay da lay nax da lay tardé légui nak mu ne la nak loolu bimu ko waxé ba pare mu ne la mu ne la wa baadu mu ne la nak yaqulu bil ilmi wal hibad kama yurabbi bi tarki aada mu ne la da lay wommat ci xam-xam ak jaamu yàlla waaye du la wam ci ay ful kulóore ki tapalé di la diglu mom bu la ko diggee mom rek waaye wér ndax fi ne ñëpp ci am pump te bu fekkoon ne loolu noonu la demee pour coowul mu dem àjjana sëñ Tuubaa daf ne war xamal as yaay leen am waaye te raddu ila dunia euh, sëñ Tuubaa ne ñi nekk barsax sëñ Tuubaa wax ñi ci bàmmeel yi sëñ Tuubaa nee na benn yitte lañ am mooy dil siwaat àddina waaw ku dem àjjana loolu si àddina sëñ bi nañ bàyyi nañ il faut ñu yeew ñelaw yi dafa bari sëñ Tuubaa moo tax mu ne yeewu leen yéen samay nit yii ñu leen di wax di leen dig di kuñ suul ñu ne dem na àjjana àjjana kenn demu guf ay buntam ubbi koogul maa koy wax léegi sëñ Ibrahima Diakhat dama ko mas a wax benn waay woo ma mu dem Aliou sëñ Maodo Rafa il di xot ba daal di ne lan lay suñ maam aadama ba léegi nag yàlla ubbi la gudd àjjana kenn waa ji woom ne ma yow yaay maam Balla mu ne ah, ma man di sëñ bi damay jéggul ma ne ko xam mu ne ma dama laa saaga woon ma ne ko man keroog la jéggal ana loo ma ana lu waral loola mu ne ma yow di sëñ bi damaa digg nga ne àjjana kenn demoo ma ne ko waaw man de maa ko wax mu ne ma yonent bi sëñ Tuubaa fuñ ne ma ne xaw ma xaw ma kumpale ci ma mu ne ma yow kon xamoo ko waaw waaw mu këpp daal di may saaga saaga forox xam naa mu dem Aliou yëpp mu nu mu def ba digg sëñ mu woo ma ne ma léegi daal xàmmee nga ma ma ne ko xàmmeewu ma la mu ne ma man maa la fi woowoon da saaga la ma ne ko saaga bi de ba mu paas moom jërut ji nañ ko bàyyi. mu ne ma ne ko léegi lu xew mu ne ma damaa dem ci génn kilifa daal mu xutba ne sunu maam Adama ba léegi daal àjjana kenn du ko gis ma ne ko ah moom li mu wax garaaw na di maa ngi koy kii di mu ne ma waaw ah loolu doy na waar kon àjjana kenn demagu ca mu ne waaw loolu la wax de ma ne ko loolu laa waxoon nga saagam jéggal naa la nit ñi toppali yooyu lañ bëgg fen del fen rek yoon wi daal yoonu nit yoonu murit wi ma gën a xam laay wax léegi jàpp nañ ne ku la ci dàqa fen daal léegi dara ji jéeg yooyu daal ci fen nga koy am léegi yooyu moo xew sol takk sa jar di lëkki lëkki di wax nangam sëñ diw gërëm na ma pititi patita li ñu wax dara amul wala sëñ di kéeg sëñ diw diw dem na aj waxtu bi daa jëf wasalaamaaleykum wa 대화 suñu kóllëreeg ñoom ndax seen bis ba la muy nekk trop ñuy dalal ay gan dañuy ñëw fii barkeeluwaat ci bis bi loolu nag Pastef weesu ndax man mi tey moo bëggee woon jëlee fii yëpp ma feneen xam naa ne du yomb kon nañ leen di sant bu baax di leen ñaanal Sëriñ mi tax ñuy jaay di def lii mu fay leen xam naa ne kon. waxtu yi i xaw a xat comme ni ñu ko waxee woon sëñ Atou Tall ak ñi mu àndal ñoom nañ jege si. ला ilaha लला Cheikh Bamba defar naga gaa yoo xam ne sax xamoo leen defar na gaa yi xamit nga xam leen Cheikh Bamba defar na say mbokk defar aw jàmbur ba ñëpp jag na jàpp nag sa ñàmbur yaa tax ba wala ki kajoor ak ñàmbur di def yiw ko la sikkal du jàmbur ak sant war nanu bu wér ñun ñi la aw lii war war um lay war a karaw war nanu laa sant bu wér yow Bamba nga war a sant yàlla ak yeneen ba sant nga it sant bu kenn nit yëgal ni sa may gi tuutul sang bu nekk may na may wante may lu ab sang may gu la may sang bu nekk yàlla ay yëf may yow nag dala sopp ba jëmmam la la may Cheikh Bamba bu yàlla doonu ndaw ma xam ne yaa ko jël sang ya des fa def yëfam ca doo ko moo yow ma jël jëmm ji nang sante xanaa di sant kay wareeru sant santal te santaane liggéeyu sant ku la sant la si nan ko sant foog naa samay mbir dikk dimbalee si la te ku ma déggal dikk dimbalee si la woo naa samay rakk te woo samay mag si sa liggéey yi cant bii ku woo naa samay mbokk yu ndaw yëpp ak yu si sa liggéeyu cant bii ku dikk bég woo naa samay mbokk yu góor ak yu jigéen jëmee si yow mi jubalu góor ak jigéen Cheikh Bamba ku dikk nag boppam ku dikkul boppam man dikk naa te maa ngi lay sopp ba doon te maa ngi muslu lépp lëf lu dul yow te xam ni bii yàlla boo ma bawoon ak yàlla kon am na ki ma lëf ngir sama bon gi ak ndox gi ma dof man sant naa la nag ma santal yàlla si yow mi leeral sama digg yàlla barke maam Cheikh Afar in tuub laa tey jéem a ñu maam Bamba si bu gën ziar bi teew suñ PAP bi teew Baye Sa Diakhaté ñu koy ziar bu wér bu ko tuddee rek mel nañ tam ñun ñëpp di ziar góor yàlla yëpp ak soxna yëpp di ziar waa Daara bi Daara bi Saalum Khourou ñu leen ziar bu wér seen bamb Baye Dama Kaatu Ndaw mu leen tuddee rek tudd nañ mbooloo ziar nañ ñëpp.